dana nekk jàmm ci li nga xamante ni moom mooy euh, gëstu bi ñuy def ci li nga xamante ni moom mooy màggal gi ak euh, wàccaay gi nga xamante ni euh, ñu ngi ci jamono ji nga xamante ni ñu ngi waajal li di màggal gi ñoo ngi fii ci Touba jàkkaarloo li nga xamante ni moom mooy jumaa ji ak résidence Cheikhul Khadim ngir waxtaan ak askan wi ñi nga xamante ni ñoom ñoo jógee ci àdduna si fu nekk ñëw ngir màggal si bokk ci li nga xamante ni moom mooy ñëw bokkale ñi nga xamante ni ñoom ñooy santale Serigne Touba ci bis bi nga xamante ñëwee nañ ko santale ñu euh, ñëw rek ngir euh, xool askan wi dund ak ñoom li nga xamante ni moom mooy ambiance yu màggal gi laaj leen ku nekk ni nga xamante ni noonu nga gisee lii di euh, màggal gi ak ambiance bi nga xamante ni lañu gis ne jamono ji ci ñaari fan rek des ñu war a amal li nga xamante ni mooy màggal gi dinañ leen ko wan fii ci Rewmi TV ngeen topp ñu kon ci li nga xamante ni moom mooy les besoins du màggal si li nga xamante ni moom màggal Touba ci wooteeb Serigne Mountakha ren ci atum 2021 jërë ngeen jëf installé dëkk bi ñuy wax waasul commune de Roangue tey nga ñëw fii ci li nga xamante ne moom mooy Touba ngir euh, euh, màggal ci li nga xamante mooy woote bi sëñ bi woote ci li nga xamante ne mooy màggal Touba donc euh, dimanche ñu war a mais tey nga gis mbooloo mi bëri fi trop trop trop trop donte ñu ngi doon wax ne ay mbas meeg lu ni mel mais teewul mbooloo mi ñëw nañ wuy si wooteeb sëñ Mountakha ba nga ne cëpp ci bi lan a gis ci li nga xamante ni mooy yëg-yëg ci yow sa yaram waaw kay jërëjëf sëñ bi bi mu ne cëpp ci dëkk bi li ma jëkk-jëkk yëg ci bi nit ñi bëgg sëñ liggéey bi Sëñ Tuubaa liggéeyal sunu borom ba nga xam ni su wootee mbas ak leneen lu dul mbas kenn tootu ko gis ndax liggéey bi Sëñ Tuubaa liggéeyal sunu borom ba nga xam ni moom la suñu borom di fay loolu laa jëkk yëg ci sama xol maanaam mbégte mi ma yëg ci sama xol te sëñ sëñ Muntaxaa di ko wane loolu rek laa yëg bi ma duggee ci dëkk bi euh, ndax fa nga jógee euh, euh, yoon bi métti wul page yi yokkul ak yu ni waaw fi ma jógee yoon bi métti na parce que pratiquement nii ma lay waxee ñun bi ñëw dafa am suñu benn oto boo xam dafa renversé wu ci yoon bi kon xam na waaye lépp ñu sant ka xam ne suñu borom moo ko moo ko dogale noonu ñu sant ci yàlla bu baax sant ci sëñ Tuubaa bu baax a baax ba nga xam ni lépp loo xam ne ci yoon wi la rek dañuy xam ne ndogal suñu borom la waaye nag plus de peur que de vraiment oto bi renversé mais amul kenn koo xam ni eh, wàññeeku na ci am na ay blessé mais kenn wàññeeku waaye nag fi ñu jógee soren parce que ñoo ngi jógee région de bi ci commune de Ronkh sëñ Mountakha mooy mooy doonee lislaam doole lislaam parce que euh, sëñ Mountakha dafa nekk koo xam ne ki tey dafay doole lislaam dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér rek sa kaw sa kanam. ñu gis ne ren gis nañ ci li nga xamante ne mooy safar yi ñu gis ñoo xamante ne dem nañ ba ay chrétien léegi di dund dund safar est-ce que nekkul fi nekk loolu message la boo xamante ne dañ koy wane ne sëñ Touba ñëpp la fi nekkal àdduna bi moo tax moo tax mu ñëw. xanaa dégg loolu mu la wax sëñ Jëlbeen dem la sëñ Touba moo waajal waajal ndax sëñ Touba kenn la bu ko yàlla fayee li mu def si lislaam lu raw lii la ñuy gis ndax chaque année daa yaakaar ni màggal gi parce que tey màggal gi ay seegul jour ji mooy deux dëkk bi mel nii ah wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa rek a mën a am loolu. ndax uh, coono ci yoon bi. amuñu benn coono macha allah ñëw nañ ci jàmm génnee nañ fa ca jàmm ñëw agsi fi ci jàmm macha allah ziare ziare bu neex tombeeg àjjuma bi macha allah moom neex na moom. na paas yi seerul ci yoon bi ak uh, jafe-jafe ndoom. Kaolack daanaka 2500 rek lañ fay ñëw 2500 lañ fay daal di ñëw. waaye daal amuñu benn jafe-jafe daal ci yoon wi. mais ba nga gis mbooloo mi bër ma dama ne ba ma gisee mbooloo mi dafa mel ne tey ji la màggal gi. dañ ñëwoon tey jii la màggal gi waaye da ngay xool tey ci àjjuma bi juddu màggal gi samedi dimanche di war a nekk màggal gi mbooloo mi mel nii kon bu dimanche nan la war a mel nga xam ne Sëñ Tuubaa moom daal amul morom daal. am ngeen mbégte bu baax a baax ñun dañoo kontaan macha allah ñun murid di dañoo kontaan macha allah jërëjëf Serigne Touba Mbacke jërëjëf. xam nga nag nit moom soo doxalee si ndigal yàlla lépp loo am moom da nga koy mérito waaw yàlla moom ku topp si waxam di nga am loo xam ne macha allahu rabi mbooloo bi rek moom dafa jar sax dama dem ba jumaa ji sax ma yëngalaat sama bopp ma ne liggéeyal yàlla joon na waa ndax weesu wut xam nga jour bi ñëwagut sax waaye avant jour gi nga gis mbooloo nit te raw na suba luy ñëw leer na ma sax mun na am moo ëpp sax lu fi nekk. waaw macha allahu rabbi di sant yàlla nag di sant ma Serigne Touba sant kullu doomu ak kullu kii nii. waaw ñaar ngee ñëw di màggal si. man wax fa ne yàlla yàlla dafa yàlla dafa def nag maa ngi bi may sama premier nag waaw. ndax chaque jour na damay waajal nag chaque màggal damay waajal xam nga rek yoon mu yoon mu sotti moom kenn mënu si dara. nga yàgg dégg Touba nga yàgg dégg Touba ñu la Touba nga ñëw tey découvrir gis ni mu mel tey ci ambiance ba nga ñëwee gis ambiance yooyu loolu la nga yëg sa xol. non bu ñëwee moom dama kontaan franchement parler moom dama kontaan ndax ma juddoo ba léegi moom lu ma gis fii ni moom wax dëgg fa ne yàlla ma benn dëkk ma gis ko foofu noonu. waaw ndax pare nga pour chaque année nga ñëwaat màggal si. non loolu moom pare naa ko moom. waaw chaque année moom incha allahu rabi yàlla defee. même mu dee ale paas kese laa ale bi kese naa yow dëgg sama tànk lu si des nag ñu bàyyi ko su loxo yàlla incha allahu rabi. tur bi naka ak foofu man de Moussa Gueye laa tudd Lambaye laa dëkk nekk si transport bi nag di liggéey. Dakar waaye lii moom maanaam li ñu ko yëgee mooy man kaana laaw kaana laahu lahu ku nekk suñu borom suñu borom nekkal la. ca wala bu da an yàkkoon na Serigne Touba li mu waxee ne sibti ka sibti rasulillahi ay subada moo ci nekk Serigne bi dafa na ba kanam xam sa Serigne bi na si jëti ñu boole ko ay noon di koy xiise di ko soxore ca bu ne ñu alak ko kon martabaam day yokk ba nay tukki rek xanaa kay di sant yàlla di julli ci alayhi salaam cey ñaan julli ñii fi dajaloo ba yéem ñëpp saa borom kenn ku ci nekk defal sa sa tawféex ci saw yaram ak say bëgg-bëgg ak sa ruuxu ak jàmmi àddina ak jàmmi ndax Serigne Touba am na ko ci yàlla ni ko defal ñun ñëpp. ndax mbooloo ma nga ñëwee ndax mbooloo mi yéemu la si soixante-douze heures avant Magal gi. maanaam dana jaaxla kii maa ngi koy wax ne ko xoolal ma doomu aadama yi ana lu ñu wut si Touba est-ce ñàkk lu def wala danoo amul fu ñu jëm wala lu xew waaye nii xanaa bëggewul suñu Bàmba nii loolaa nga femme bi léegi nag man waaru naa léegi doomu adama yi mun naa xoolal xale ñoo ci gën ndaw xoolal ñëpp ay enfant la ñu taxaw nii ñii ngi daw ñii ngi dar eh, kii kon daal lii li ci des daal eh, ci ab liggéey mooy naan jërëjëf Serigne Touba. ñaata at ci ren ngay màggal. ah na ba ma juddoo ba tey ba 83 laa judd ba léegi waaye chaque année maa ngi màggal. ndax li nga gis 83 ak ren li nga gis ah, ma gis ren moom mosuma koo gis sëñ Mountakha dañ koy ñaanal rek màggal gi moom chaque année day gën a neex rek waaw ma ànd ak sama xarit yi jógee ba Ndar ñëw dalal silma waaw may mun a may ak Fary Diop. mais boo gi ñu naan ñu naan dëkk bi daa dëkk bi daa am mbas teewul suñu woote na ñëpp ñëw màggal si teg si donc yow lan la nga yëg sa yaram wallaay kontaan rek xam ne Serigne Touba moom mën na lépp ndax Serigne Touba moom lim ñu defal sax ñun danoo jomb waaw ñun fii moom yëgatuñ sa ay mbas ñun ñun daal sant Serigne Touba rek lañu gis te moom la ñuy def ba faaw rek. ñu euh, nekkoon fi nga xamante ni moom mooy euh, Touba ci wàccaay li nga xamante ni mooy màggal gi comme ni nga xamante ni euh, gis ngeen ni ko askan wi waxee ñëpp ñi nga xamante ni ñëw nañ fu nekk ñu jógee fa ci dëkk bi Saint-Louis Thiès Kaolack fu nekk jógee ban ba Ziguinchor ñëw di màggal si li nga xamante ni wax nañ ko mooy li leen yéem moom mooy population bi nga xamante ni ñëw nañ wuy si donte ñu ngi doon wax ne Sénégal daa am mbas mais lépp muy wane ne li nga xamante ni moom mooy l'universalité de Serigne Touba l'universalité de de Serigne Mountakha bi nga xamante ni fi mu nekk nii euh, ñëpp ñi nga xamante ni message bi joxe woon ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel euh, fi nga xamante ni mooy Touba donc gis ngeen côté ambiance bi noonu lañ koy wëyalee noonu la ñuy demalee di wër fi bii Touba fépp foo xamante ne war nañ fa mën wan li nga xamante ne moom fa nekk ci côté ambiance war nañ leen man ci côté li nga xamante ne moom la ñuy dundalee euh, màggal gi dinañ leen ko wan fii ci Tawfekh Production ngeen mën di dund màggal gi 24 heures sur 24 lépp loo xamante ni màggal gi daal war ngeen ko mën a gis dina leen ko wanale ak Tawfekh Production li ngeen def rek moom mooy wooy di abonné di di def li nga xamante ni mooy activation cloche notification bi ngir mën di am suñu ay vidéo saa su nekk di jaajëfal sama ay technicien ak ñi nga xamante ni ñoom àndal ci liggéey bi di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ñu topp saa su nekk fii ci Tawfekh ci li nga xamante ne mooy màggalu Touba bu 2021 fii ci Touba Mbacké